Pago Jackson euh, ñoo ngi lay nuyu te ñu fekk si la fii sa biir koñ jàpp euh, gis nañu fan yëpp ay violence yu bëri di am euh, maanaam ci campagne bi yow a tant que Pago Jackson ban aperçu nga am ci loolu. waaw déjà pour commencer déjà damay nuyu waa Sénégal yëpp yéen ñu ñëw ba fekk si ma fi nga xam fii laa juddoo màggee fi te aw ma lu dul fii parce que tey nit xam nga ni soo génnoon àdduna sa koñ lañ lay indi ñu jullee la xam nga te suñ lay jullee aussi. yàlla na fekk mbooloo bii ñëw fekkee ko di am seede yu rafet yu ñu la mën a seedeel ndax yàlla mën laa yërëm parce que nul n'est infaillible xam nga nit ku nekk mën ngaa juum si sa àdduna ci lu bëri mais da ngay ñaan yàlla tout le temps xam nga yàlla di la soppi ba nga nekk nit ku baax te loolu rek moo jar ñaan bon su ma jógee ci loolu nag damay ni xam nga dañ ni jongante foo ak ree la mais jongante du xeex ak reyante dégg wax ji Sénégal nag dafa am benn modd bu bees bu fi xam depuis quelque temps mooy ni que léegi da ngay gis kuy dem stade yóbbaale paaka kii yóbbaale jaasi ki yóbbaale pistolet ki yóbbaale ràbb kenn xamatul léegi pour un u ou pour non ñu rey la da ngay gis batalo Joola nekkoon na fi scandale bi gën a mag ci àdduna 2000 morts pour négligence. ak euh, indiscipline sénégalais yi ñu ne dénna waay après amoon na euh, lu fi xewaatoon euh, gars yi di rayante waaw xam nga gars di rayante nga dem ci làmb ji gars yi di rayante nga gis ay ku ñu jam ay ay ay ay ay bëgg xam nga mais léegi Sénégal dëkku lool mais fii du Libéria fii du Sierra Leone fii du Afrique du Sud fii dañu ñu dëkk Serigne Touba ay Mame Alaaji Malick ay nit ñu tedd nit ñoo xam dañ liggéeyal yàlla mais léegi dëkk bi kenn xamatul lan la xool ko sa ci ay campagne électorale surtout xool ko ci mais Sénégal yi mais ban problème la ñu am mais est-ce que problème bi du affaire méchanceté mais kenn xamul lan la da ngay jékki-jékki toog di seetaan télé nga gis gars yi di jamante ay paaka nga gis euh, ñu ne na ñu diw. match football nak la ci ay huit personnes mën a deewee pour lan. négligence wala indiscipline. mais indiscipline négligence ñun jàppoo kenn gënuñu woon xarañ ci affaire violence parce que ku ne jàppoo man dama koy wax kenn ñemewuñu woon mais tey jii indi nañ benn image boo nga xam ni amatul violence jàppoo amatul parce que dañuy toog di waxtaan ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. xam nga ñun léegi dañuy match su amee dañuy solu ba jekk parfumé wu dugal suñu poste ba mu fees dem stade toog seetaan su jeexee ñu ñibbiwaat wax booy ni que violence du am mais Macky Sall président Macky Sall il faut mu jóg ci. lii mënu continuer nii. ñu gis cortège yu Youssou doomu Medina dem Grand Yoff ànd ak le ministre Mame Mbaye euh, ñu gis fa ay problème euh, waaye dem gis nañu cortège bi aussi jaaraat ak Medina waaye fekk nga ñu fi Youssou Ndour mais bi yoon Paco Jackson lañ fekk. waaw xam nga xam nga ñoom bi ñu demee euh, Grand Yoff Grand Yoff dañu ni xëy na foofu la Khalifa Sall ëpp mbooloo parce que Khalifa waa Grand Yoff la ñu duggee Grand ñoom ñu def démonstration de force comprendre nga da man Mbaye ñaa ministre bi expliqué na ma ci fin bi bi ñuy génn ci pont de l'émergence bi si lañ leen kocc mooy ni que déjà ñoom préparé woon nañu ah pour kocc gars yi parce que xamoon nañ ni que gars yi xëy na bilan bi président indi ah ak suñu xoolee ak li fa ñoom ki ñu yaakaar daf yaa pa pas photo donc loolu du leen neex ñu jaay leen xëy na ay affaire doole wala affaire yooyu mais jàppoo ñun Médina fii réglé fi kenn du fi kenn du ñu woo ci pël kenn du ko woo ci guuxum njarum soow xam nga ñun billaahi wallaahi wa tallaahi kuy jaay bandi wax sañ-sañ ba yeg si fii fii la fii la capot yi dëkk. waaw mais naan dañ naan ma Fall toujours mooy borom Médina. waaw mais suñ neexee ñu ne Bamba faal mooy borom Médina parce que c'est le maire. am na fi dara kenn du ko werante Bamba Fall réalité la Médina mais nag man du ma day sama bopp mais li fi am démb ah te ñëpp xam nañ ni fii la affaire bi démarré seen journaliste yi nekk na fi jàppoo su génnee ñun xajuñu fenn ñun la ñooy Chine déggoo ma de Chine ñun démb wane nañ ni Paco Jackson waxuma Bamba de dafa am wàll fii. te mu ñooy ASC bi gën a mag jàppo ñoo ëpp ci Médina donc naka lañu Bamba mën a taxaw ni moom Médina du ñu ñu ne fi Cheikh Ba ne man ma nefi fi ñaar laa mën a wax man xaw ma ñeneen ñu ñaar daa xam na existé nañu booy dëgg la wala du dëgg. waaw ah, mi ngi noonu. léegi lan lay lancé euh, maanaam ban message de paix lay lancé pour euh, euh, li des ci campagne bi ci na vague de violence. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay muy bamb bamb barki démb laa xewle fii kenn njëkku ko fi ak i terangam mooy suñu maire loolu la yàlla dogal dañ koy nangu jàmm la ñu ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu dugg ci affaire violence parce que tey su Bamba amee lu ko métti wala benn partisan am am gaañ-gaañ wala ñaanuma ko yàlla musiba daal ko ñun ñëpp ñoo nar a dem ànd dem mastawu ko c'est la Médina ñoo bokk ndey ñoo bokk baay man vraiment amatuma état d'esprit bi ma amoon 2014 xeex génn ay pistolet dóorante jaasi toj bopp pare naa ci yooyu man jàmm laay parce que ñu ñëpp ay doom Médina nañu xool lu soqali suñu Médina lu setal suñu Médina lu fi jëlee pauvreté lu fi jëlee ñàkkum emploi ñu loolu la ñuy ci yooyu la ñuy dox moo tax chaque dimanche ñuy réunion est-ce que comprendre ñu woon ni kenn ëppalewu fi kenn dara ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. jërëjëf Paco ñoo ko bokk Mbour yow sama xarit ni <laughs>